bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi wa xassin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xadaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo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 waxtu wi lu mu teel teel ñi nga xam ne dañoo dëkk ak daaray alxuraan ñu ngay dégg gone ya nekk ci njàng ma nga xamante ne ci waxtu yi ëpp solo ci waxtu yi ñu jàng la bokk ñoo ngi leen ci ndokkeel bu baax ci kàddu yu xale yooyu ci alxuraan yi waaye ci mag ñi nga xam ne ñoo ko jiite rawatina ñi nga xam ne ay jàngalekat lañ waaye soppee jotaay bi lañ di ànd ak ñun di ko wétli ñi nga xam ne it waxtu wi fekk na leen jóg tàqalikoo ak lal ya bu yàgg ndax xam ne ab tëraay du doy def jotaay bi muy seen jotaay yu wéttal ñoo ngi leen di nuyu ab tëraay du doy jaafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaa borom bi subhaanahu wa taala ngay tagg julli yi waaye beral aw tagg ña nga xam ne nee na bu guddee seen faar yi sori seen lal yi maanaam doonuñu nit ñoo xam ne dañuy fanaan ci lal ya rek waaw fanaan yi tëdd rek nga xam ne boo moytuwut nelaw di wëlbatiku rek moom ba jant bi génn xay na xëy mi moom jox nga ko obligation obligatoire boo xamante ne mënta ñàkk def nga ko muy lu mënta ñàkk ma wax baat yooyu rek moo ma gën a jege def nga ko lu mënta ñàkk ba nga xam ne moom bu waxtu woowu jotee da nga jóg waaye bu dul woon waxtu woowu moom waxtu xëy wi euh, fàggu aw yiw du la jaral mukk dagg say nelaw ndax nelaw ci yi neex ci àdduna ni àdduna bindoo da cee bokk te ci neex nag seytaane da ciy ñëw roof ci ay mbiri boppam yoo xam ne da ciy gàbakkan bakkan bëgg ko te du doy bala nga koo xam rek nga yendoo nelaw ba ngoon jot du tee bu subaa nga bëgg a nelawaat gannaaw doo doy doo ci suur doo ci màndi bu subaa nga soxlawaat ko am na ñoo xam ne am na nuñ ko organiser ndax bakkan bi euh, yaram wi am na ci wàll waaye nag danañ xeex ak moom seen kemtalaayal kàttan ba du yàq seen farata danañ xeex ak moom seen kemtalaayal kàttan ba léeg-léeg ñu sacrifier ci lu bari ndax wut ci aw yiw yàlla nañu ci yàlla boole boole leen ci yéen ñi nga xam ne waxtu wii yéen a ngi ànd ak ñun jotaay bi te di déglu en direct naka noonu lum teel teel ba léegi nii rek bi may jëm si ci rajo bi yaa ngi dajeek ay nit ñoo xam ne ñi ngi waaxu le la ñu doonu jigéen nga xam ne àdduna bari yitte waaw àdduna bari yitte da xam ne bu du woon yitte àdduna yu bari yi am na ci waxtu yoo xam ne da ngaa waxtu wii xanaa mën naa xaar warul woon a fekk nit ci yitte ju nii. waaye boo ko daboon léeg-léeg bu la waxee la ko tax a jóg wala lam fanaane nga yéemu ci yàlla am na koo xam ne gëmmut bët gëmmut bët léeg-léeg soxlaa tax waaw léeg-léeg soxlaa tax soxla yu mënta yu mënta ñàkk ba noppi te fajuwut nga xam ne danaan dama amee insomnie euh, wet gu ne mu tëdde ko te jaaxle rek ko waral jaaxle rek waaw am koo xam ne tawat lay doon waaye noonu la àdduna bindoo moo tax ku mën a teggil sa mbokk njàqare teggil ko ko waaye bu kenn dox ci luy teg mu bokkam njàqare nit fanaanee xoole te yàq ko teg daray àdduna jëru ko waaw nit fanaanee xoole ndax jaaxle te jaaxle gi yow mii moroomum nitam yàq ko teg leleen nga teg ko ko ci sa mbiri bopp dong fanaanee nelaw yow waaye yàq nga àddunaam daray àdduna jëru ko yàlla nañ ci yàlla musal koo yàq àddunaam mu yàq sa àllaaxira ñoo ngi leen di ciy jaajëfal bu baax a baax te di leen nuyu ñaan borom bi subxanahu wa taala mu def jàmm ci réew mi ñaan ko mu def jàmm ci réew mi suñum réew jamono ji eh, suusaloo na lool waaye suukaloo na lool it ci eh, tolluwaay yi nga xamante ne léegi tey ñu miin ko te miin ko baaxut gënut ci ñun waaw ñu miin aw ay wala miin fitna moo xam ay wax la wala fitnay jëf loolu gënut te ñu ngi koy tàmbalee miin. ndax li muy am day tàmbulee bëgg a bari ba noppi jege yoo waaye waay euh, bunt boobu yàlla na ko borom bi subxanahu wa taala dimbali bañ mën koo tëj du ma wax yàlla tëjal ñu ko waaye mu dimbali ñu bañ man koo tëj ndax dafa am yoo xam ne ñoo koy defal suñ bopp dafa am yoo xam ne ñoo koy defal suñ bopp waaye moom duñu ko defal waaye nag euh, sàkkal nañu ay làmmiñ waaye wutal nañu ay xel. tànn na ci ñun ñoo xam ne am na fu seenu tànk joti daan nañ wax ne artu baax na borom kër ci këram léeg mu gis loo xam ne fa mu jëm baaxut mu teel a artu ndax day bañ a àgg ci fa muy àttee waaw am na ci loo xam ne ku ko seetaan bu mbir xewee ca ca way seetaan ña ko ca ko sooke nga bokk ci ña ko sooke nga bokk moo tax artu daan am daan wax naan bu fi amee mooy tandiku leen nangam ak def leen nangam mel ne loolu ci taxawaayu kilifa gi nga xam ne ci laay waxtaane tey ci la bokk di waxtaan woow indi nañ ko fi tax ci yeneen i jotaay yu dut euh, almisbaax di ki nga xam ne mooy njiit lu baax ndax day lu mënta ñàkk njiit mooy jëmm ji nga xam ne day liggéeyal nit ñi mooy ki nga xamante ne nii day taxaw ci def effort di def ab liggéey boo xam ne liggéey boobu day dem ba def jeexiital ci ñi nga xam ne ñoom la jiite def ko ci seenu jubluwaay waaye def ko ci doxalinu àdduna ndax taxawaay yi nga xam ne am na ko moo tax njiit am solo njiit lu baax euh, taxawaayam day jeexital ci ab population njiit lu mel ne ne nit taxawaayam day def jeexital ci ab oppos ci ci aw xeetam laa bëgg a wax ci aw xeetam day def aw day def day def jeexital ci aw xeetam ca ña nga xam ne ñoom la jiite taxawaayam day def ci ñoom ay jeexital moo tax lislaam dafa doon diine joo xam ne ci doxalinam dafa fedd li li nga xam ne mooy njiit def ko muy loo xam ne mënta ñàkk def ko def ko loo xam ne lu mënta ñàkk ci société bi la su fekkee am na loo xamante ne société mënu koo ñàkk aw askan mënuñ koo ñàkk mooy njiit aw askan mënta ñàkk njiit lislaam moom loolu jàpp mooy aw askan mënta ñàkk njiit moo tax léeg nit jàpp ne lislaam diine la politique politique la li ci ëpp ci loolu ñàkk xam njàngalem lislaam mooy waral nit di ko jàppe noonu waaye lislaam moom mooy politique politique mooy lislaam politique bu baax nag moo tax may wax politique bu baax moo tax may wax boo déggee ku tuddi nutu diine bëgg koo xase ne moom daa bëgg politique xanaa daa bëgg politique bu baaxut bii bokk suñ politique bii moom façon bu baaxut bii nga xam ne léeg mooy nax nit ñi ba falu wax nit lu du dëgg warante weddi sa bopp nangam nangam loolu moom waxuma la lislaam waaye jikko yu rafet yépp da koo bañ ak nite bañ ko waaye politique taxaw nag ngir jàppale nit ñi ba seen àdduna jag donte àdduna du jag waaye dimbali leen bañ am dalug mën a jaamu yàlla fexe ba lépp ñu koy teg di ko tër di ko jéem doxal ci dëgg loolu mooy njàngaleem lislaam loolu bu dañee ci diine diine ji jeex tàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la jàngale boo demee ci lislaam ci dundu yenent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ko tomb par tomb da ngay gis ne yi ko gënoon a yitteel tam ci daan tegoo ay coono mooy question yi nga xam ne dafa soxal société bi maanaam question politique yi taxaw na ci taxawaay yu rëy rëy rëy rëy waaw léegi nag man ngaa tànn kilifa goo kilifa waaye yow sa kilifa mu noppi ngay bàkkoo maanaam kilifa gi daa noppi du wax du wax dara du wax dara dara dara waaw moom daa noppi doo ko dégg mu wax mukk léegi loolu mooy tagg wa te yàlla mësta yónni benn yonent ne ko boo demee noppil amul benn yonent bu yàlla mësa yónni yonent ba nga xamante ne risaalaam mooy ñëw rek noppi maanaam responsabilité wu kilifa mooy orienté ab société maanaam la nga xamante nii mooy xew ci société ba mu bokk ci ña nga xamante ne nii dañ naan nañ ko defee nii ak duñ ko defee nii nañ ko defee nii ak duñ ko defee nii lu dut noppi nga dooni wax lu dut rek nit ki dema dem ba toll foo xam ne eh, waxandoo ba daa bari pëccëxoo ba bari noppeem ga doon ay wax ndax day loo xam ne wëreesu caa wax kon lislaam moom dafa feddali eh, def am kilifa muy lu mënta ñàkk ma ne kon buñ xasee ba wax loolu te tudd kilifa gi baat bi boo koy wax ci wolof kilifa kilifa kilifa day mel ne da ngaa bëgg a wax nit ki baayam wala nga bëgg a wax nit ki sëriñam wala nga bëgg a tudd nàngam waaye baatu kilifa gi bu dee ci waxin wi boo ko doon wax feneen boo ko waxee ci weneen làkk mën nañoo wax président waaw mën ngaa wax bi nga naan mën njiit mënta ñàkk mën ngaa wax ne kon ab ab président ñàkk bi ngay wax njiit li mënta ñàkk mën ngaa wax lii mënta ñàkk wala lii mënta ñàkk loolu daa bokk ci taxawaay yi nga xam ne lislaam da koo def muy lu mënta ñàkk ci ab société waaw mu soññee ci soññee soññee soññee soññee yu rëy rëy boroom xam-xam démb ya wala sëriñi démb ya dañ daan dugg ci actualité politique ya di ca te di ca tegoo coono yañ ca tegoo di ca tegoo coono yañ ca tegoo imaam Malik eh, imaam Abu Hanifa moo jiitu nga xam ne tëdd na ci kaso eh, ci yooya ba génn àdduna imam Malik naka noonu dóor nañ ko ca ba mu xaw a làggi imaam Ahmad ibnu Anbal naka noonu tëj nañ ko ca kaso dóor nañ ko ca imaam yi naka noonu taxawal nañ ko ca tribunal ba àtte ko ca te ñii kat ñooy suñu ilimaan yi ci wàllu diine mooy ñi ñi roy waaye ñoom ak buur yañ jamonoon teeloon jël position ca doxalinu société ba ak la nga xam ne nii moo leen engagé donte mën naa bañ a doon ca wàllu Euh, seenu palak pol li gañ xas ba jubo waaye lañ doon taxawee taxawaay la yoo xamante ne yitteeloon na société bi lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne daganut ci ñetti nit ñetti nit képp ñoo xam ne dañoo nekk ci kaw suuf di dox hmm, ànd ci ànd lu dul ne dañoo tànn kenn ci ñoom jiital ko nga xam ne kon am njiit euh, mënta ñàkk am njiit lu mënta ñàkk la waaw lu mënta ñàkk la ñetti nit rek la wax beneen addis mu ne isaa xaraja salaasa fi safari fal yu umaru ahaduhum ñetti nit bu ñu àndoon jëm ci tukki nañ tànn kenn jiital ko maanaam nañu jiital kenn ci ñoom nañu nañu nañu jël kenn ne ko yaay suñu kilifa yaay kilifa jotaay bi boo ñëwee ci kër ngir kër gi jaar yoon day am kilifa day am kilifa léeg sax yàlla na too waa kër gi ñu am kilifa gu ko matut wala ñu natoo famille bi ñu am kilifa gu xaw a doy waar ngir ma bañ a wax gu ko matut waaye kilifa gu xaw a doy waar waaye mooy sa kilifa mooy sa kilifa mag ñi ne kilifa du tuuti waaw kilifa du tuuti moo tax imaam Shawkaani wax ne e, ñaari xadis yi ma wax léegi mu ne day tegtale ne sharia dafa dëgëral dafa dëgëral yoonal lool am njiit am njiit ci bépp lim ndax nee na lim bi mu ngi ko tàmbalee ci ñett ne gannaaw ñett ngeen dong wut leen wut leen njiit nee na wala kon lu ko ëpp lu ko ëpp kon rawatina ndax nee na njiit loolu ñuy tànn dañuy musal ci ak wuute dañuy musal ci ak wuute woote wuute goo xam ne mën nañoo yóbbu ci ak noonoo njiit li tànn dañuy musal ci ak wuute wuute goo xam ne mën nañoo yóbbu ci ak noonoo kon ndekete am gi ngay am tey président am gi ñu koy am lim ñu yóbbee mooy ñu mucc ci ak wuute nga xamante ne du dootuñu dootuñu doonati ñoo xam ne dañuy pëccëxoo waaye dañuy nosewu dafa mokk ci kon ci njariñul euh, njiit li muy euh, muy président bi mooy mu doon koo xamante ni nii ak buum lay doon goo xam ne réew mépp buñ doonee ay per dañuy nosewu ci buumam googu dañuy nosewu ci buum gi mooy tax duñu du ñu ko ba war a nosewu nosewu ba ba ca war a topp topp ca ba ca war a topp topp ca buñ noppee ñu jàpp ca catul buum ga muy moom yëkkati ñëpp topp ko yëkkati ñëpp topp ko ma ne ñun nag ci suñu tërëlin yi nga xam ne dafa wuute ak njàngaleem lislaam léeg dangay am njiit ba noppi ñu ne la léegi liberté ne la démocratie euh, wax la ay baat yoo xamante ne baat yooyu moo ñuy indilaan ñun ak wuute ba wuute gi indilaan ñu li nga xam ne mooy ak noonoo su fekkee njiit li dafa am day am leneen lu taxaw loo xamante ni mooy jàkkaarloo ak moom ñu maanaam ñu teg ko ñu teg ko loolu mooy li ñuy wax constitution baat bi dafa tubaabe waaye tey bu fekkoonte ne ab delluwaay la boo xam ne dañ naan ci lañ tënk yi nga xamante ne moo ñu boole lu tënk daan ne lii mooy am réew lii mooy am réew lii lii lay tekki mooy am réew bañ ca noppee ñu tënk ne lii mooy ab état euh, nga xam ne loolu dañ ko bind ba mu leer état taxaw ñu rëdd ko muy lu ron ñu tomb ca kaw daan ne kii mooy ki nga xamante ne nii moo ko jiite ñu di ko wax seef bi mooy chefu état bi kooku nag mooy mooy kilifa gi ndax kilifa du dara lu dul ab chef ñu ne biñ ko defee nii mu nekk ab état ngir mu mën a dox faw dañ koy tànnal ab chef koo xamante ne mooy dem ci kanam wommat ko biñ ko tànnee ba teg ko ñu ne ko yow kat dañ laa war a topp dañ la war a topp yaa ñu war a yóbbu moo tax buñ la bàyyee yow dong ne la demal yóbbuñu nga yóbbuñu du sotti ndax ñun dañoo xaw a dëgër bopp moo tax ñun ci suñ bopp ñooy tànnaat yi jox la ko ndax ne la nang ñu wommat ku nanguwute ñëw nang ko xëcce yii ngir mu mañ ngir mu mën a ñëw ca yooya ñu am luñ jël teg daal wax ni lii mooy lii mooy àtte lii mooy àtte gis nga bu ñu réeroo ñun ñëpp nañ jëllu si ci lii ñoo ko teg ñoo ci déggoo de nga xam ne bindu ko teg ko daal bu ñu bu ñu dellu réeroo guñ am ci suñ biir nañu dellu si ci lii bu ñëwee mu àtte ñu nañ ci xool nañ ci xool loolee ñu ne nañ ci xool la am ci suñ biir ñoo xam ne ñoom ba ñu jàng dañ ne ñun loola la ñuy jàngi loolee ñu ne nañ ko xool ñun loola la ñuy dem jàngi bañ ko jàngee ba man ko ci seen biir ci lañ tànn ñoo xam ne dañ yéen ñii ko jàng ba man ko yéen ñëw leen fi ñëw leen féete fi lan ngeen fii def ngeen xaar ñu fi ndax ñun ñëpp xam nañ ne mënuñoo wéy rek di dëppoo doon benn dana am yoo xam ne danañ ci réeroo dana am yoo xam ne danañ tooñante dana am yoo xam ne danañu gaar bu ñu yooyu gaaree ñu ànd ñëw ci yéen ngeen xool ci lii ñu dëppoo woon àtte ñu ci <laughs> waaw ngeen xool ci li nga xam ne ñoo ci dëppoo woon ñun eh, ba dajale ko na ngeen ci xool ndax yéen a ko jàng ñun moom askan wi yëpp mënuñu woon a dem jàng ko ba xam ko ba mën a àtte suñu bopp ci kër ya liñ mënoon rek mooy ñu yëg ne mi ngi fi yi muy tere ñu xam ko di ko moytu yi muy digle ñu ciy góor góorgóorlu buñ ci amee ak wuute nag faruduhu ilallahi wa rasulihi ñu daal di ciy dellu si ci alquran ak sunna ñu dellusi ci àtte ba nga xam ne moom lañ dëppoo teg ko bu boobaa àttekat bi àtte ñu ci ñu ne yow mi nga xam ne yaa ñu jiite nag yaay seef bi nag ñu xoolaale lii ba bu yàqu ndax gannaaw bu ñu réeroo ci la ñuy ñëw di ko àtte moo tax ñu wutub chef boo xam ne dañoo bëgg mu ñu koy sàmmal ndax bu yàqoo ba wóolootuñ ko dañuy am jafe-jafe ndax mënuñoo ñàkk ami jafe-jafe te bu ñu amee jafe-jafe ci moom lañ koy réglé si kon rikkuwaay ñun bu ñu sàgganee ba suñu bopp ñu sàggane ko it nag ñu dimbali yow mii chef bi ñu tànn la ci suñ biir nga bañ a sàggane lii ba lii moom du yàqu ba buñ fi ñëwee mu lijjanti ñu loolu nekk wàllu àtte ak li àtte boot lépp nga xam ne mënoon nañ ko mënoon nañ cee mënoon nañ cee yendoo wax chef de l'état boobu nga tànnate ci kanamam ci kaw ci lañu wutaate ci suñu biir ñun ne ko danañ tànn ñun aw nit ci suñu biir ñoo xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy yor sa sécurité ñooy yoraale itam ñun suñu sécurité waaw nga xamante ne Euh, dañuy dem tàggatu mm, ci mbedd mi ñoom sañ na ñoo yor ay armes sañ na ñoo yor fetal dox ci mbedd mi waaye ñeneen ci des nag buñ ko def de ndax wóorut bu ko ñëpp yoree léegi pëcc xoo am waaye ñoom nañ ko yor ndax man ñoo aar ñun nañ ko yor ndax man laa aar waaye dégg nga ndax man ñoo aar ñun waaye du doon doole joo xam ne doole yi moo wax yëpp biñ ko dajalee jox ko ki nga xam ne mooy seef de l'état bi lim doon jariñ mooy ngir mu man ñoo ngir mu man ñoo ngir mu man ñoo jàppale ngir mu mën ñoo dimbali waaw ngir mu mën ñoo dimbali ngir mu mën ñoo yombalal li nga xam ne dafa jafe ci ñun ngir mu mën ñoo xëccal li nga xam ne dañ ko yóotu te mënuñ koo jot loolu moo tax ñu dajale ko jox ko ko maanaam biñ dajalee lépp muy aw yat ñu jox ko waxuñ ko ne ko wëlbatikul jàkkaarloo ñun nag ne ñu duma seen moroom duma seen moroom da ngeen a da ngeen maa yab man man du ngeen ma yab waa ñun kay yëbuñ la moo tax ñu tànn la di waa baa boog bu ñu la yebee nga xam ne kon dañoo juum wala xamuñu li ñuy def ndax yow kenn waru laa yeb ndax ñun ñoo la tànn teg ci sa teg la suñ kanam fexe ba nga am personnalité am xëy ba euh, mel ni nga war a mel loolu mooy suñu nooflaay ci ñun ci suñ biir nag du ñàkk léeg-léeg ñoo xam ne dañ def naka sudut noonu waaye bu dee yow da ngaa war a kawe ba tiim ñu ngir euh, jubbanti ñu te bu nit defee yenn kii nga bëgg a wàcc ba ba gën a suufee ba gën ñoo suufee bu boobaa da ngay yeexal suñu doxin yow itam bul bul def noonu kooku mooy njiit li nga xam ne mën mënta ñàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bu ñett àndee sax nañ tànn kenn jiital ko yow nag nangu la muñ yow miñ jiital yow miñ jiital ne la dañuy tukki suba na nga coordonné voyage bi jàppal ne na nga coordonné tegtale ne dañuy tànn ki gën a oyof mbubb déedéet dañoo jàpp ne kii moo gën a mën a taxawu nit ñi ci seen bëgg-bëgg yi nga xam ne moom dana fexe ba oto bi ñëw heure dana mën a eh, eh, woo nit ñi fàttali leen fi ñu daje biñ dajee itam ku manqué dana am oyofuk mën a jël téléphone am woo ko yaa ngi xool eh, biñ duggee ci kaar bi léeg mooy jóg xool ba xam ndax ñëpp yéeg nañ nangoo sonn naan kër kër kër kër kër kii mooy ab président di kii mooy kii mooy ab président maanaam ki ñu doon tànn di ko jiital liñ ko doon doyee mooy buñ ko jiitalee bu accès mën a defal lii nit ñi mën a defal lii nit ñi waaye doonut koo xam ne kuy ñëw rek ne sogg la moo tax ci melokaani njiit yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne xaw sayyidul xawmi xaadimuhum maanaam sangub nit ñi chef bi mooy ki nga xam ne mooy ki leen di liggéeyal waaw ki gën ci nit ñi mooy ki nga xam ne day liggéeyal nit ñi ki gën ci nit ñi mooy kiy liggéeyal nit ñi mbooloo moo dem fekk ñu toog ka ca gën wala ñi ca gënal yàlla mooy ña nga xamante nit ni ñooy dox ca aajo yi anam ñoo nekk ci yittee nit ña kon ki nga xam ne mooy eh, seefu mbooloo mi ki nga xam ne mooy président bi huwa man yaqumu ala xidmatihim mooy ki nga xam ne day taxaw nag ci fas yéen fas yéene leen liggéeyal nga xam ne buy tukki ñoom ñoo tax buy tukki ñoom ñoo tax moo tax ñu ne ko jëlal ci liñ am jënd cib avion ndax yow dañoo bëgg say yoon jàppandi ndax yoon wi daa war a bari te ñun ngay tukkil ñun nag gannaaw ku ne boppam lay tukkil ku bëgg a tukki defal sa pexey bopp ngir tukki waaye yow bu ci defanteeti ay pexe yow jëlal ci suñu alal yi bokk ñun jënd ci lu yóbbu ngay tukki jëndal ci suñu alali bopp yi wut ci woto bu baax yëmu ci waaye boo bëggee dem fenn ci dëkk bi sax nang ñu ko teel a wax ñu wàcc ñun ñëpp tëli bi xajal la nga gaaw dem doxi ko te ñëw ndax xam nañ ni yow boo demee ñun ngay demal <laughs> waaw boo demee ñun ngay demal demaloo sa bopp bis boo demalee sa bopp nag tooñ nga ñu bis boo taalee sa woto bi ñu wàccee tëli bi ndekete sa yittee kes bopp kese kese kese moo la tax a jóg wala sa yittee njaboot waaye lu dul yittee askan wi la wor nga ñu wor nga ñu ëllë yowmal xiyaam ca kanam borom bi subhaanahu wa taala danañ ko lijjanti danañ ko lijjanti yi ki jiite nit ñi mooy ki nga xam ne day dox ci di leen liggéeyal day dox ci di leen liggéeyal moo tax kooku day am ay melokaan yoo xam ne faawu melokaan yooyu nekk ci moom faaw melokaan yooyu nekk ci moom melokaan yooyu dinaa ci indi juróom xam naa damay indi benn tam tey tàmbalee ko ko muy melokaan bu njëkk bi mooy yërmande mooy yërmande njiit mënta ñàkk am yërmande bëgg jiite aw nit ba noppi te yërëmoo leen du sotti du fi mu ne ruu yëpp la yàlla bindandoo waaye bëgg ñu yërëmante moo tax mu jaarale ñu fi mu ñu jaarale ndax tolloon nga jamono joo xam ne kala wóofoon di la nàmpal bu la yërëmut woon ba am tolloon nga jamono joo xam ne cëpp cëpp nga sa kaw baay ba tàyyi waaye yërmande la ànd ak yow tuur nga kafeem gi ba tàyyi boo muy tuut léeg sax yàqal nga ko loo xamante ne weeram yi ni mu seere mu fonk ko joggi nga ci mu damm waaye mu yërëm la rek bàyyi la ngay cëpp cëppi yërmande yërmande njiit day am aw yërmande ci aw xeetam day am yërmande ci aw xeetam yërmande yërmande ji mooy lan mooy doole ji ma wax léegi ne moom la ñuy dajale jox ko ko doole jooju du ko wëlbatiku jëme ko ci kaw xeetam waaye day jël doole ji ngir fegale leen ko lépp loo xamante ne war na leen a mën a lor waaw fegale leen ko lépp loo xam ne war na leen a mën a lor nga xam ne euh, du du du du jël mukk ay position wala ay acte yoo xam ne daf leen di stressé waaw nit war a xëy liggéeyi tey ci talaata ji waaye mu ne danaa teel a xëy kat wàcc balaa midi ndax dëkk bi wóorut gàccale ci kuñ tànn ne la yaa jiite ndax yow daa bokkoon ci sa yitte mooy nga fexe ba dëkk ba nit ñu nit ñi am amug wóor amug dal doo indi benn jeexi jaaxa wala menn lënt moo xam ne dana am ci am pénc ba nit ñi di ne ne ñogg ñoggaaral te ku yërëm xeet woo xam ne yàlla xam ne am na ñoo xam ne dañuy xëy ba mu naaj ñi door a amub dépasse bi wéef ko seen njaboot maa ko gis ñoo xam ne danañ xëy léeg-léeg ba midi te dépasse bi du sotteegul te yow li nga am ci lig yiñ la jox ci ay faveur yëpp seen yoon nekku ci ñu ñu bari ci ñu mel noonu maanaam yàlla xam ne déranger wu leen ci dara waaye yow it nag jàmmal leen nag jàmmal leen doxaleel doxaleel doxalinu jàmm wu ñëpp bokk woo xam ne ñoom it dañ amuk dal ba nga xamante ne danañ mën a dund ni nga xam ne noonu lañ bëgg a dunde yal nañ yàlla boole sàmm yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal ko yàlla def ci réew yi ñu wër bu ñu yàlla may ñu dund ba suba ak jàmm yal nañ yàlla may ñu dund ba suba te weesu ko daañu wéyal tomb waxtaan woowu nga xam ne ci la ñu nekk incha allah taala ñu jaajëfal leen bu baax jaajëfal imaam alxaaji oustaz Alioune Sall ñaanal ko noppalub jàmm ak dellu si jàmm ci kanam tuuti moom la ñuy àndal ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama la nihaaya li kamalika wa adada kamali seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu